bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki alxuraan di ab jàngalekatub alxuraan wala jàngkatub alxuraan waaye bokki jullit yi nga xam ne ñoo senq seq diine lislaam ji noo ngi am mbégte toog fii ci kër Serigne Mouhamadul Xabbaan ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal mu ànd ak waa rabitatul quraaniya ci njiitul cheikh Mahamadul Basir moom sëriñ Abibu mu feggoo ak sëriñ Ibrahima si ak sëriñ Xaali Jaxate ak ñiñ ko seqal dend ak waa daayira muxadamatul xidma bi nga xam ne sëriñ Afiye Buso moo ko jiite. ñu jot ndigal nag ci sëriñ Touba cheikh Mahamadul Muntaxa ndigal loo xam ne mi ngi jëm ci dogalub yàlla bi nga xam ne wàcc na ci kaw suuf te wàcc ci réewum senegal wàcc ci sunuy bokk. mu di daje googu nga xam ne ñaari oto yi daje nañ ko ci yoonu Tamba wi ba ay bakkan wadd ca ay nit gaañu ca loolu nag sëriñ Mouhamadul xaa xam ne lu bàyyi ko fi yàlla la mu wóor ko ne dara mënu ci dara lu weesu tuub delluwaat ci yàlla ak ñaanal ña dem sun borom jéggal leen ña ca des sun borom delloowaat leen ci seen sago. loolu moo tax mu jox ko ndigal nag ci njàngum alxuraan moom santaane ci réew mépp ci ku koy déglu. ñu fab kàddu gi jox ko sëriñ Mouhamadul Xabbaan mu jottali ko bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yi. bokki jullit yi. bokki jullit yi. fu waay mën a nekk. fu waay mën a nekk. ci biir Sénégal ak ci biir Sénégal ak ci biti Sénégal. rawatina nag bokki taalibe yi. rawatina nag bokki taalibe murid yi. Cheikh mu Cheikh Mouhamadul Mountakha. moo leen di nuyu. moo leen di nuyu. di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ci dogalub sunu borom bi wàcc. ci dogalub sunu borom bi wàcc. bokki jullit yooyu. ci bokki jullit yooyu. muy dogal boo xam ne. muy dogal boo xam ne. sunu borom da koo dogal. sunu borom da koo dogal. te ab dogalam kenn mënu ci dara. te ab dogalam nag kenn mënu ci dara. waaye sañees naa muñ. waaye sañees naa muñ. ak yàlla. ak ñaan yàlla nag. sëñ bi wax ne. sëriñ bi wax ne. mi ngi mi ngi mi ngi mi ñi nga xam ñoom ñoo ci am ay bokk. mi ngi masawu ñi nga xam ne ñoo ci am ay bokk. di ñi ci ñi ci di ci ñaanal nag ña ca bàyyi ko. sunu borom defal leen njëgal. sunu borom defal leen ak njëgal. teg loxo ci seen njaboot. teg loxo nag ci seenu njaboot. ci ña ko am. te ña ko am. wala seeni i wayjur. wala seeni wayjur. ñi ngi sant ñëpp. ñi ngi sant ñëpp. ngir bu bu ngir bu subaa. ku di ab taalibe rek. ku di ab taalibe nag. digal. sëriñ baa ngi lay digal. te nga yor daara. te nga yor daara. wala nga wala nga mën a jàngalu. wala nga mën a jàngalu. Euh, bu dee bokk jullit yi. bu dee bokk jullit yi. ñu ngi sàkku ci ñoom. ñu ngi koy sàkku ci ñoom. ci noonu ni mu ko waxee. ci noonu ko sëriñ bi waxee. ñun ñëpp ñu ànd. ñun ñëpp ñu ànd. fu daara nekk rek. fu daara nekk. ñu doxal fa loola. ñu doxal fa loola. ñaan yàlla jàmm am ci. ñaan yàlla ñu la ca des jàmm yàlla def ko ca. ña ca ràcc. ña ca ràcc. suñu borom defal leen ak wér. suñu borom defal leen ak wér. ak mucc. lii nag day dogal boo xam ne. lii nag day ab dogal boo xam ne. sëriñ bi wax na ne. sëriñ bi wax na ne. ku mu wàcc ci yow rek. ku mu wàcc ci yow. dara mu sunu borom mi ko dogal. sunu borom mi ko dogal. moo ko moo koy dogal. moo koy dogal. la ca gën nag kon. la ca gën nag kon. mooy ak muñ. mooy muñ ko. waaye nag waaye nag lu tiis la. waaye nag lu tiis la. ndax boo dee xool ñi ci bàyyi ko ñëpp. ndax boo dee xool kat la ca bàyyi ko lépp. dañuy yaakaaru. dañuy ñu yaakaaru. ay ndaw di ay ndaw. waaye nag fan jëm. waaye fan jëm. nañu ñaan suñu borom mu leen fi ñu bàyyi nanu ñaan rek suñu borom mu gënal leen fi nu bàyyi ko. lépp lu suñu borom def rek. ndax lépp lu suñu borom def. ak ak ak muñ. ak muñ. akuk cant. akuk cant. ni ko Serigne Touba di waxee. ni ko Serigne Touba di waxee. sabru ak sukkur rek moo ci war. sabru ak sukkur rek moo ci war. kon nag ñoo sant ñëpp. kon ñu ngi sant ñëpp. ci ci ci leen ñu am farlu ci. ci ñu am farlu nag. fépp fu jàkka nekk. fépp fu jàkka ne bu ñu mënee wàcce kaamil bu ñu mënee wàcce ay kaamil bu dee daara noonu bu dee daara noonu li ci des nag dama koy bàyyi bokki taalibe li ci des nag da koy bàyyee bokki taalibe yi ndax fii ñu yëpp lépp waaye lépp ngi aju yëpp daal ñu ngi nii waaye dañoo aju ci sëriñ bi bi rek ci ndigalu sëriñ bi rek fu nekk rek kon nag fu fi mbooloo mën a na xam ne lii mooy ndigal li na xam ne daal lii mooy ndigal li ñu ngi ñaan nag lii gëj fi di dànkaafu tam sëfoor si di dànkaafu nag sëfoor si ñuy ñuy bàyyi xel ci. ñuy bàyyi xel ci. loo gis dogalub suñu borom la. loo gis dogalub suñu borom la. waaye nag ak dal dana tax mu mu nag ak dal dana tax dogal ba woyof. ñu ngi ñaan suñu borom musal leen. ñu ngi ñaan suñu borom musal leen. musal oto yi. musal oto yi. ndax mënee suta ñàkk dugg ci oto ndax mënee suta ñàkk dugg ci oto waaye nag buñ ci dugg waaye nag buñ ciy dugg ñu xam nañ ciy duggee ñu xam ñun ciy duggee ñee dawal itam ñee dawal itam xam nañ ci nañuy dawale xam ni ñoom ñu dawale am na ku baax am na ku baax ku waxoon ni ku waxoon ne dawal bi gën a eh, ñoŋ ci dawal yi. dawal bi nga xam ne moo gën a ñoŋ ci dawal yi. bu nee bu nga ne teg. bu nee yang nga ne yow. bu nee yang nga ne yor. ku koy def rek ku koy mën nañoo musal. suñu borom mën nañoo musal ci lépp. lu jóg. dana ca taxawal nam ca war a taxawee. dana ca ca war a taxawee. lii bi mu ko yëgee ba léegi. ndax lii ba mu ko yëgee ba léegi. daa taxaw temm ci ne nañ daal di yëgal ñëpp. daa daal di taxaw temm ci nattu. ñaan sunu borom yamal yamale fi nattu bii. ku am ku mel noonu nag. ku am ku mel da nga ñaanal yàlla. da koy ñaanal yàlla. sunu borom ko fi yàggal ko sunu borom yàggal ko fi bàyyil ñu ko fi. ak mboolem njabootam yi mu jaboote. ak mboolem nag njabootam yi mu jaboote yëpp. di ay rakk. di ay rakk. di ay seex. di ay seex. di ay bokki taalibe. di ay bokki taalibe. ñu sant yàlla ñu ngi sax moo waroon a wax. sëriñ Basiru mii nee na moom la joxoon ndigal li mu wax. waaye ñoom ñëpp jox kàddu. waaye moom ñëpp dañ ko joxaat kàddu gi. li ma sëñ bi sant naa wax. ndax li ko sëriñ bi sant na wax ku ci mu doy waaye ku ci waxoon mu doy jërë ngeen